moom Baye mbay Donda woy wii Mor Ndiaye doon woy léegi sunu hymne bi ku fi yaakaar woy wa ko jiitu xam nga boobu mi ngi ko woy 57 mais bi mu woy 54 ku ko am am na yonel mu ni keroog bi ma ko woyee ci laa am ci laa am wilaayatu ci laa am fàttu ci làmmeñam laa ko dégg waaye li wax léegi moo ci nekk sunu yoneen ba néeg Aïcha la faatoo sunu xalifa ba néeg yaay astu la faatoo sëriñ Abdu nenn maa ko tiim di ko upp léeg-léeg mu ne xefeet am lu ma wax ma bind mu gëmaat nee na léeg-léeg am lu ma wax ma bind mu gëma mu gëmaat nee na ba wax ma li mu mujj wax sa dernière volonté keroog xaal jàpp ko mu ni ma keroog lii la seen ma mujj a wax nee na ma xool ko mu ne kamat nee na dama tiit ba dugg ci gi nee na Serigne Cheikh Tidiane si ñëw ni ma Abdou Aziz lii lan la ma ne ko mais Cheikh ñun torox nañu rek ñii réew mi lëndame nu di ay xale amul lu dul góor gi mu dem ne ci suñuy loxo mais lu nuy def nee na mu ni ma ci biti lu dul bejjaw yóbbaale wu ko àllaaxira mu ni moo tax mu yeesal ma te suuluñu sëñ Babacar Si keroog la ma wax ni ma nitu yàlla fu ruuxam rote moo ëpp doole fuñ ko suul mun ma moo tax ak yonante kenn du ko yëkkati mu ne ma motax bari na lu lëndëm ci Sénégal ma ne mun ma fi ruham rote lañ koy lidjenté mu ne ma allah Hadj Aziz dabba lu ko massa jaxal ci Sénégal 3 heures du matin lamay feug mu uppil ko mu jonkan lu muy wax ak yàlla fi la may wax mu ne ma Serigne Mansour ci borom dara ji ñuy dafa yore prise mané ne mu ne ma néeg bi moy prise 4 quatre heures du matin lamay feug lu muy wax ak yàlla fi la koy wax mu ne Cheikh Ahmed Tidiane ma ca Dakar lépp lu muy arrangé ci wàllu yàlla wàllu politique ma ne mu ne ma fii lay yónnee si ndaw maa koy waxal fii mun ma man mi lu ma wax fii yàlla du ko dindi foofee lañ ko sange foofee lañ ko sange yanu ko bi ñu ne ko jëyi ci taaxam maa ngi ci rek ci néeg yaay assu la faatoo biñ ko nee jëy rek la soxna assukan ummul muminin ni bunt bi tël ni teg leen ma def sama dernier témoignage ñu teg ko mu muri ko xool ko dañ ni ko biñ ne ñaar ñaari jeune lañu yàlla boole